aleykum mes chers compatriotes je rends grâce à Dieu pour le don précieux qu'il nous a fait en nous offrant en partage ce cher et beau pays le nos vertus cardinales de paix de démocratie et de solidarité sont l'une de nos plus grandes forces une richesse inestimable que nous devons préserver à tout prix. Je rends également hommage au peuple sénégalais, profondément attaché à ses valeurs de paix et de démocratie qui, malgré les épreuves de ces dernières années, a su faire preuve de maturité et de résilience en transcendant les antagonismes pour permettre une élection présidentielle apaisée, libre et transparente. Les changements significatifs que nous avons vécus au cours des derniers mois dans la paix et la sérénité sont une nouvelle preuve de maturité exceptionnelle de ce peuple, de la vitalité de notre démocratie et de la robustesse de nos institutions. En vertu de la confiance que vous m'avez accordée, j'ai pris l'engagement de servir solennellement chaque Sénégalais, sans distinction, que vous ayez voté pour moi ou non. Car que vous ayez voté pour moi ou non, je suis votre président. C'est pour honorer cet engagement que j'ai renoncé à mes fonctions de secrétaire général du parti PASTEF Les Patriotes, afin de me placer au-dessus des querelles partisanes et de consacrer toute mon énergie au service exclusif de notre nation. Face au nombre de défis qui se dressent devant nous, J'exhorte chaque Sénégalais à résister aux tentatives de la division et aux manipulations. C'est dans l'unité que nous trouverons la force nécessaire pour relever ces défis. Ensemble, dans la solidarité et le respect, nous serons plus forts. À l'approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j'invite tous les Sénégalais en particulier les acteurs politiques, quel que soit leur bord, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes. Nous avons observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires, ainsi que des menaces verbales ou physiques dans l'espace public, médiatique et sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences. Les élections sont un moment crucial de choix démocratique, un moment de fête et non un prétexte à la discorde. J'appelle donc chaque acteur à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Nous devons tous, collectivement, préserver ce que nous avons de plus précieux, à savoir notre stabilité et notre démocratie. Certes, les défis sont nombreux, mais je veux réaffirmer avec conviction que le Sénégal est sur la voie du redressement. Les fruits de nos réformes commencent à se faire sentir à travers des résultats concrets, surtout, vous le noterez dans les mois à venir. Je souhaite à tous les Sénégalais et à tous les acteurs politiques une campagne électorale pacifique est digne. Et garanti vous garantis que ces élections seront libres, démocratiques et transparentes et que gagne. Vive le Sénégal. mbokki Sénégal gannaaw bi ma sante yàlla ci bu nu ñu xéewalee ñu bokk li nga xamante ne amul njëg muy bokk Sénégal bi nga xamante ne taar teraanga ak jàmm rek lañ ko xame lii di jàmm di jàppalante di nawlante mooy li doon suñu kàttan suñu alal goo xamante ne mënuñu ko àpp ci njëg moo tax may sargal askanu Sénégal mi nga xamante ne askanu jàmm la askanu teraanga la waaye askan gu fonk démocratie la at yii ñu weesu ak nu mu metti metti askan gi wane na mat wane na tamit bëgg réew mi ba tax na lëpp lu mën a xew am nañu élection boo xam ne ci bu mu jotee génn na ci jàmm voté ci jàmm tànn président bi nga xamante ne moom la fi bëggoon teg lii ngeen seetlu nag ci at yi fan yi weesu ci weer yi weesu ci jàmm ndax ñépp gisoon nañ ne dëkk bi meloon xaajaloo bi féewaloo bi ba ca biir njaboot yi du lenn lu dul méritu askanu Sénégal ak ni nga xamante ne suñu démocratie suñu institution ndëgërlaay bi nga xamante ne askan gi rek ci ci la weeru ni ngeen ma wooloo nag ba teg ma ci kaw réew mi ma waat ne ci taxaw seen iite rek laay nekke te duma ci xool xaj ak seen duma ci am xaj ak seen ndax ka ñi ma watal ak ñi ma bañ a watal yépp maay président ñépp kon ñépp laa war a boole njaboote engagement boobu ma jël nag ba mu tax ma génn ci politique ci Pastef ci ni ma nekkee woon seen secrétaire général waaye nekk fa simple militant pour mën a gën a nekk bañ a péete mën a njabootal ñëpp moo tax ma def ko te dinaa ci def sama kéemtalaay kattan ngir njëriñu Sénégal jafe-jafe nag bëri na waaye gouvernement bi xar na ci tànk tubéyam ci sama njiit ak njiital président Ousmane Sonko mi nga xamante ne mooy premier ministre nañu moytu dugg ci li nga xamante ne daf ñuy féewale day gën a andi jéeyu ci réew mi nañu moytu lu mel noonu ci biir booloo ci biir mànkoo ci biir dëggoo la ñuy mën a songanteeg lépp loo xamante ne jafe-jafe la ci suñu kanam di suñu kanamu njaboot ci kanamu Sénégal bi ñu bokk ñu war ci ànd ak nag nawante ànd ceeg solidarité ndax loolu moo ñuy kattanal ci lépp loo xamante ne soobu nañu ci ñu ngi dem ci campagne électorale ci élection législative yii may woo sénégalais yëpp waaye woo rawatina ñi nga xamante ne ñooy acteurs politiques yi ak fu ñu mën di nañu moytu wax gu ñaaw ji nañu moytu discours yi nga xamante ne dafa ànd ak violence nañu moytu tamit teg ay jéego yoo xamante ne dafay fësal violence seetlu naa ci fan yi ñu génn commencé naa dégg wax joo xamante ne dëgër na ëpp na sax ci ci nuñ ko mën a nattee bu ñu gisee fu ñu jógee ak fu ñu mën a yóbbuwaat am na ci sax ñoo xamante ne ñu ngi commencé di bax di jax-jaxal loo xamante ne ab waasu mbirum waasu la war mbirum gëm-gëm ci biir ci tele yi ci émission yi ci espace médiatique yi waaye tamit ci réseaux sociaux yi sama gëm-gëm du noonu la ñu war a régler suñu féewaloo démocratie dafa ànd ak ku nekk wax sa gëm-gëm nangul keneen point de vue te mu bañ a andi noonu élection yi ñuy dem élection yu am solo la ci tànneef war a doon sax feet ci démocratie waaye warul doon loo xamante ne dafay indi feewuloo suñu diggante kon maa ngi woo acteur politique yi ñu wane responsabilité ak mat te tamit yem yem ci ci ci ci ci propos yi ñuy wax maanaam ci kàddu yi ñu bañ ko ñaawal nañu rafetal lépp dañuy dem waxtaan ak askan wi bu ñu paree askan wi dina dem ci jàmm nu mu ko defee woon 24 mars te mu gënoon metti tanaat koo xamante ne moom ñoo ñoo xamante ne ñoom la bëgg ñu ñu teewal leen assemblée nationale suñu responsabilité la nag ñun ñëpp citoyen acteur politique ñu sàmm li nga xamante ne amuñu lenn lu ko gën a am solo muy suñu démocratie suñu stabilité jafe-jafe yi bëri na loolu dëgg la waaye bu ñu booloo manko dinañ gis ne que Sénégal mën na génn ci jafe-jafe yu mu nekk dem ci eeru euh, naataange bu ngeen seetloo lu ñu commencé teg lu bëri xëy na communication bi mën na am mu des waaye am na lu bëri lu ñu fànq ci lu yàqu-yàqu ci loo xamante ne ñu ñu tegoon la ba pare wala lu ñu doon waaj a teg maa ngi ñaan nag sénégalais yépp di ñaanal Sénégal di ñaan tamit acteurs politiques yi. ñu dox ci jàmm ndax ñu mën a am campagne électorale ci jàmm waaye li ma leen mën a biral mooy élection législative yi moom dina leer ba buñ ci jógee ku ñu daan di nga xam ne yow lañu daan nga war a mën a am matug félicité koo xamante ne ñoo moo la daan ñiy fekkante assemblée nationale teewal Sénégal ci jàmm maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm salaamaaleykum. Euh, merci beaucoup excellence monsieur le président.